بمرج المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا وخالفي المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وخالفي بمرج المصطفى Shiva. الإمام زين أختمون بالمصطفى له أمر وأفوز إذ جنة الخلد بي غدا أفوز بالإيمان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 di seex Muhammadul Muntaxa yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko. ok tey ñu yendoo ak mbégte waaye yendoo ak sant yàlla ci jataay bii nga xam ne jataay boo war a am la ba noppi am te daan am muy sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Muhammadul faadal jéego yi mu yëkkati. di ko jóge ci këram di ñëw ci këram di yëkkati jëmmam di fi fekk jëmbam ñëw ci kër Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir di rakkam ñu bokk ndey bokk baay waaye yooyu yëpp xaritoo itam nag waaye muy jéego yoo xam ne nag li sëriñ Habibu di faral di wax buy jóg day wax ne lépp sëñ Tuubaa lay doon ndax liñ mën a bokk lépp buñ ko bokkee te wut am cër bu sëñ tubaa def ci moom te cër boobee dama koy suuxat waxtu wu ne ndax lépp luy tax ñu yàpp yoon wi du bàyyi ko ci Abibul waaye loolu moo fi fekk nag kii mu fekk pas-pasam boobu rek la yore ci sëriñ Tuubaa muy ni koy faral di waxee Cheikh Mamadou Bassir bu fekkee ne ci jikko ju rafet nga koy tagg da nga fekk ne ci borom makarimul axlaax yi lay bok te bok na ci tedd ngay jikko moy wan sa mer ak di lu la sof ak di jëlale tay jéggale te yoy mo wax yëpp ku ko jàngat ci jëmmam da nga ko gis ci moom ak lu ngeen mën a seq tam bàyyi ko ci yow nga wax ko ko ba nga def ko doo jàkkaarloog Cheikh mohammedul Basir ba xam ko ci xar kanamam do ko jàkkaarloog moom ba xol ko ci lam wara ak yow te lépp loo xam ne pas-pas la buy dëgëral ngëm ci Serigne tubaa boo diggee danga fekk na ci loolu la. loolu nit ñi wax ne sariya jëmu ko amul wenn waxtu julli woo nekk ci wetam te dina waxtu wu julli na ko ci waxtoom ba noppi jiite la ko te waxtu wu ne yaa koy njëkk a wan ginnaaw penku bi loolu dana tegtale na kon li muy def lu ko ñor la waaye nag teewut dàkk bëggug sëriñ tubaa di ko liggéeyal ci doomu aadama yi. sëriñ Fallou nee na woon topp yàlla ak jaamu yàlla bokkunu topp yàlla mooy li la yàlla digal te jaarale ko ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na sañ bañ la. jaamu yàlla nag danga koy jaamu ci jaami yàlla yi kenn nattable wut ne mi ngi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi kon noo ngi ñaan suñu borom gën koo guddal aw fanam gën a dolli ak wéram waaye yéenay mag ñi ak seen yaakaar yàlla na ko yàlla dëppale ak man-manam. ñu am mbégte lool tey ci jataay bi nga xam ne Cheikh habibullah yandu si ko fi mom and ak bok yeb te bok gi di genn bu ñu wa keur Ñang fekk fi wa musobe fekk fi itam askan yeb danañ xam ne rek mo wara am amu ci benn buntu kër boy dem ci seen buntu kër yi du dut ne da nga fa fekk dal yu bari yu wuté ci barab yuñ ko kon day tektale ne rafetuk jikko ak mana dalo ay nit rek la loolu motax jotaay bi danañ fob kàddu gi jox ko sëriñ Moustapha Jatara mu yëkkati ay kàddu yu cant ci turu sëriñ Cheikh Mahamadul Basir bu noppee sëriñ Saliou Niang dana yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Habibullah waaw wala balay booba nag sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Amsatu dafa am ñeenti bayit rek ni ko mag ñi daan defee ku ci masaa seeti sa morom daa nga bind ay bayit ba fa mu bind ay bayit jox la mu ne dafa am ñeenti bayit yu bindoon ci jataay bi su ko waxee ba noppi rek ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Moustapha Jatara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 mën naa génn ci aw làmmiñ te dañ koo daganal ba tax na ñu ngi leen di dogal ngant di leen jégalu ñu am mbégte lool ci jotaay bi yëg ci sun bopp yëg yëgit ni sëriñ bi léegi laa koy waxtaanee ak sëriñ Abdoul Ahad mii sama xalifa bi ma ne ko boo xoolee jotaay bi ni mu tëddee ak ni mu bindoo rek danga xam ni sëriñ Tuubaa mi ngi fi ndax kenn ku nekk yaa ngi ëffal sa bopp wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaas yooyu alxuraan di wax mo feñ ci sama xol motax ma def ci ñent bay di dama wax ni muhammadul habib muhammadul habib ibn al fadil قد نزل الدار الحبيب النابل محمد البشير من قد فضل بالخلق والخلق عند الفضلاء دمني شيخ محمد الحبيب انه شيخ محمد الفاضل واتنا في تكر واتنا في تكر شيخ محمد البشير ديغان شيخ محمد البشير ميغا خامني كو سوني بروم دينك ام خيل xel mu rafet nag weesuwut euh, dajale say bokk kenn ku nekk ngay jëflanteek moom ci jëflante ba yàlla te kenn ku ne di ci gis sa bopp te kenn du mer te damay wax ni li tax sëriñ bi fab ko dénk ko lim ko dénk loolu rek la ndax jikko ju rafet mooy lépp ndax mboolem ponki lislaam yëpp euh, li la ci yàlla sant boo ko ci defee ba noppi muy ñëpp a koy def ndax garab yi sax dañuy jaamu yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiyahumu waaye nag Lanen li nga xam la nit di mën nit moy jëflanté nit ñi ci jëflanté bu rafet kenn ku nekk di ca gis sa bop moy jaamu yalla ci nit ñi loolu motax xel mu rafet mom motax sëriñ bi dénk ko lim ko dénk té loolu yaakarna képp ko xamni sam xel rafet na ngay nituk dëgg da nga nangu loolu euh, ma wax ni diyafatun tuzakkirul ajyala hadratal kiramizul ahwala ak ngan la go xamni bo boo rek dana la fatali magña seenu doxine ndax ay borom xam-xam ñofi dajé ak kilifa bayiko ci barab yi focanti ko te kenn ku nekk yàlla rek moo la fi bàyyi te kenn ku nekk boo xoolee xar kanam am na yaatu akuk mbégte akuk béll goo xam ni danga da nga yëg ni kii bég na lool ci bis bi wa huwa bi kulli ma xad xallaa wa kulli ma bihi mbusoo bi sa ala damay tooñ mbusoo bi <laughs> ma ne ngan gi lépp lu dagan rek lu yàlla daganal indi na ko ci biir teew na fi rawatina li mbusoo bi soxla <laughs> kon nak ma ñaan ni allahu yu'tikum dawaman ni'matan maal baqa'i wan najaa wa sihhatan yalna sa borom jox len xewal gu yaatu ak ak wér ak guddu fan bi jaddikum khadim al mustafa sallallahu alayhi man ittabahu wastafa ci daraje yonente bi sallallahu alayhi wa jërë ngeen jëf sha allah ci tour cheikh al bashir di jital ci nuyo bi cheikh al habib mi nga xam ne moo gana si tey ngan sax duñ ko tuddee ngan moo ñëw këram waaw du ngan kër gi mu ñëw mooy këram li fi borom kër gi sañ rek la fi sañ ñoo ci yam waaye nag muy loo xam ne moom Cheikh Mouhamadul Bachir dafa fees ci xolam te da ko neex lool di lu it ci moom ndax kat lii dafa doonoon loo xam ne ni ko sang bi waxee léegi aadala woon ci mag ñi fi newoon mag ñi fi newoon yu mel nii bari na luñ defar ci ci diggante lu mel nii lañ ko defaree bari na it fu yoon wi egg nag te ci nganent yi ak jataay yu mel nii ci la ci egsi ndax mag ñi dañoo gëmoon ne am na ñoo xam ne kër gu ñu wàcc rek am na lu fa yàlla wàcc ànd ak ñoom am na ñoo xam ne kër gu ñu wàcc yàlla dana fa wàcce loo xam ne nit ñi duñu ko gis waaye ay ruuxaaniyaat lay doon yoo xam ne suñu borom moo ko fee wàcc bokk na ci li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil radiallahu anhu mu gane jee kenn ci nit yàlla yi yaakaar naa sëñ Mat Saxeer Mbay la ba mu egsee sëñ Mat Saxeer ni mag ñi daan def rek nii nii nii mu def léegi nga xam ne ñoom seen ganente fokk rek nag yu mel nii am ci foog ay bayit am ci nga xam ne moo doon shawaahid yi nga xam ne sax taarix ba léegi loo ci dikk rek da nga ci fekk dara bi mu egsee sëñ Mor Saxeer daf ko daal di sadd ay bayit yu doy waar yu rafet te it moom waajal na ko moom bi mu koy def waaye ki mu koy sadd nag moom mën naa am fi saasi la koy door a dégg loolu nag lu jafe la lu jafe la bi mu egsee mu ne lillahi qawmun ida xallu bi manzilatin xalla nada wa alat fi bi anwaaru tashaaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum bi biqaaci llahi amtaaru am na gaa baax yoo xam ne day kër gu ñu wàcc dañ fay àndaale tawab yërmande tawab mbégte tawab tawféex boo xamante ne fu ñu egsi rek mu xepp ak yërmande ak tawféex loolu nag daal ne ko yow sang bii ci ñooñe nga bokk muy si sëñ bi bu mii moom la doon wax loolu ba mu ko ko waxee ba noppi mu wax ci saasi rek bindul moom itam deful dara mu ne ko iza laqitahumu aw kunta zairahum bi yumnihim faaraqat ka dahra aw zaaru ah man de ñu ngay wax ne fu ñu kii waxuma la nga ñu dikk siyaare si la waaye boo dajeeg ñoom ci mbedd mi rek ñu faj sa aajo seen barke foo dajeeg ñoom ñu faj sa aajo لأنك لك إسب زيارتي مي مي لي أمتي إسب زيارتي تلقى كل مكرمة وينتفي باللقاء الفقر والعار يلا نكو يلا دفع من يكون لك تزيارة مم تلا ندي أمي ترانغا ترانغا جينك لسان جدا وقت لغي تك موي كاوغي واي باتين منهم لنن نخ نانا باتين بنك موي فقر وعار موي غاتي أغنيك كي رغل ñun ñëpp yalla nuko yalla defal te nee ko won lolé nak ziaré dana ko indi té man japp na né ziaré bi ko ko ci fas ñun ñi ñëpp suñu borom dala ko def ndax ñaar ñi ko seq dañoo sekk lepp dañoo sekk ak bokk té ak bokk di lu for lo xamné ne ëpp na sàggane ndax day lo xamné ne suñu borom pass passu suñu borom yalla ko fas dama aadama mën nako ñaawal waaye mënu koo dindi doomu aadama mën naa koo ñaawal waaye kenn mënu ci dara ndax pas-pasu bu yàlla loolu nag mu dox ci seen diggante te suñu borom it digle na nañ koy sàmm ñoom ñaar lii ñu def sàmm ndigalal sunu borom la topp it ndigalal sëñ Tuubaa la ndax sëñ bi kat lu fonk fonkoon yu mel nii la yu mel nii di dana ko defal boppam dana yónnee ay nit ñu def ko bu jataay bi guddoon itam loolu lépp ñu waxaale ko ci waaye kon day mel ni rek sëñ Mouhamadou Bachir bu xelam xolam sedd na sedd boo xam ne ci mbokkam mii ñoo bokk de ndax nit mën ta taxaw di tag mbokkam ndax day ñuru leneen waye nak ah wax deug wa ma shayna illa bima alimna nit ku ne sañna li nga xam ci lu bax ci nit nga wax ko kon mom mi ngi wone ne mom mi di sëñ Habib euh ñu bokk li ñu bokk waye mom day waxtu wu ne mi ngi damu ci mom xolam mi ngi sedd ci mom itam ndax qualité yi ak melo yi nga xamante yàlla defal na te loolu itam muy woyof lool am positif lool nekk nit koo xamante ni itam ku dëggu la koo xamante ne àdduna sépp moom qualité yooyu bu ñu ko waxee du raayal gannaaw lu dëggu la loo xam ne ku ne mën nga jënd sa lopp sa baram ku dëggu la ku woyof la nit la koo xam ne itam lépp lu muy wax ci àdduna rek lu mu gëm la loo xam ne itam loolee waxu ko ngir lu neex kenn waaye da koy wax muy dëgg rek loolu ñëpp xam nañ ko eh, sunu borom itam dénk ko loo xam ne muy cër bi nga ko dénk tey ci dëkk bi muy liggéey boo xam ne ñëpp a ngi koy seere ku ne gis na liggéey boobu man de damay wax ne eh, sëñ bi bokk naa ci mbootaayu gone ci Touba ndax fii laay juddoo waaye mbootaay gune bokk naa ci dem naa ba ne dootuma bokk ci genn nag banaa waaw démissionné naa ci lépp lu may defati daal danaa seet man nu ma koy defee waaye kii daal wax dëgg yàlla bi ma ko gisee léegi gis naa ne lii moom wax dëgg yàlla kenn ku ne mën nga cee bokk te leer na ne nga ciy defit fa mu jëm xam nga ko kon ñu ngi ko ci sant loolu itam lu am solo loo xam ne teew mu teew mënuñ koo ñàkk wax ndax jëf mënu su ko ñàkk wax waaye Cheikh Mamadou Bassir moom mii itam ñun ñëpp ñu xam ko ñun ñii nga xam ne day ay mag lañu ba noppi nag mën a ànd ak moom am na lu tax de ñàkk ñu fula de am na lu tax de danoo jis ci moom loo xam ne kat wax dëgg yàlla bariwul lu ñu koy gis rawatina ci fii mu toll ci ay at mboole mboolem axlaaq yii ñu fi wax benn boo ci seet mu ngi ci moom muy nit la koo xam ne ku gëm sëñ Tuubaa loolu mën naa ko seede moom ku gëm a gëm a gëm Cheikh Ahmadou la daanaka dafay mel ni sax gëmul leen ko xamee dëgg-dëgg benn ñaareel bi nit la koo xam ne ku am yërmande ci doomu aadama yi la maanaam doomu aadama jenn joo xam ne sëñ Bass dana ko gis te jàpput ne njabootama jàppee ko ni njabootam amul bi ci des itam mooy nit la koo xam ne ku fonk ay kilifaam lañ ko fonk fonk njabootu ay kilifaam gii fonk na leen koo kum ci mës a gis fu mu toll rek yow da nga xam ne kay kilifaam dana dem foo xam ne du fa wane darajaam du fa wane ni mu toll du fa wane lim yor waaye moom day xool li nga xam ne moom la war a def rek ba nga xam ne foo fu ngeen mën a fu ngeen mën a toll rek yow da ngay gën a jàng ci moom sax da ngay jàng ci moom ni nit di fonkee kilifaam loolu itam nekk na qualité yoo xamante ne mi ngi ci moom loolu nag tey jii bu fekkente ne bokk nañ daje fii ñun ñëpp nu bokk fi daje di ay taalibe ànd ak ñoom ñii te ñaan yàlla nag ànd bi yàgg lool nag di jëm kanam ba faw nu ànd ko ku baax kii nga xamante ne mooy seen mag di Cheikh Mouhamadou Mountakha ku baax kii nga xam ne yàlla na ko fi yàlla yàggal muy borom axlaaq yii nga xam ne wax dëgg yàlla delloo siwaat na lu ñëpp tiitoon xamatuñu woon fu koy jëlee mu Cheikh Mamadou Mountakha delloo si waat na jikkoy sëñ Tuubaa na jikkoy euh, mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon delloo si waat na itam pas-pas akuk taalibe gu leer nañ goo xamante ne ñëpp a ngi koy gis loolu yi nag ñoom ñi mu ànd kook ñoom ñu ànd kook moom yéene ko ko lool ànd ci ak moom lool ñu ñaan yàlla loola yàgg lool ba ba ba yii ñuy naal yëpp egg ñuy tàmbaliwaat yeneen ak yeneen ak yeneen ndax kat nii mu jógee kat ñu ànd ak moom ah loolu de li ñuy tuddee li arab di wax naxda mooy luy lu bees luy jóg loo xam ne kanam la jëm loolu ñëpp teg nañ seen bët ci wàllu gu nag loolu yi nag ñoom ñii ñooy ñi ko ŋànk kon yal na yàlla eggale lépp sëñ bi nag nee na mi ngi sant ñëpp wax ji warta gudd lool maa ngi ko ab jàngalekat dafa bari wax rek <laughs> jàngalekat moom ñaari ñoom la ko yàlla bindee waaye nee na mi ngi sant ñëpp ñëpp lañ bëggoon tudd seen tur waaye boo limee rek daal di xaw a doy waar waaye ku mel mag mu toll ni sëñ Maxtaar Jaxate mii toog àndoon ak sëriñ Saliou nekk ci wetam nga xam ne jëmmam rek bu nu ko jisee suñ xel day dellu ci moom ba Bachir mii day ànd ak moom te xam nañ li tax muy ànd ak moom léeg-léeg mooy ndeysaan dafa fonk sëñ Saliou bëgg ko ba nga xam ne moom bu ànd moom rek mu dugg ak moom ci oto bi képp jàpp na ne mi ngi xelam mi ngi ànd ak sëñ Saliou ba léegi loolu itam mu ànd ak sëñ saal Jaxate ak bokk yi ñi fi nekk yëpp bu ma tuddee damay bu ma limee damay juum waaye nee na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwul kenn kuñ tudd si yàlla moo dogal tudd nañu la rek waaye fekk na xelam ak xolam lépp mi ngi ànd ak yow eh, di ñaan jataay bii nag yàgg lool di am ay jataay jataay jataay te bu dikk rek gën moroomam incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yi ñëw siyaare si la fii ci barab bu tedd bi ñu ngi lay nuyu ci turam nuyo ba gëna sel nuyo ba gëna mag and ak warma ci turu serigne Abib mi gënaaw buma leen nuyo nak ba paré damay nuyo sama bokki taalibe yi nga xam ak ñom ño bokko nek kër serigne Saliou ma di leen fi gis ndax man mënuma dugg fenn te jaruma fofu ba pare ndax buma ma mel nenn bay tok fenn rek yalla ak jëbuma tax xamni xam ñaari at ci lañ la ko jox nga am ci mom ñaar fukkat ak ben sa yo gisé ko la koy fatali rek da ngay fàtte ñëpp te fàtte lépp tax sëñ Matar ñu ngi lay siyaare bu baax yaak sëñ Saali bi meer ak sëñ Fallu jatra ñu leen di siyaare bu baax te siyaare mbooloo mi fi nekk ñëpp te wax ni sëriñ Basiru dafa am kaddu cant yu ma sëriñ bu wax ne naa ko sant waaye nag ci turu ak bokk la ma ko sant loo moo tax foofa rek laay mën jaar ndax wala fi dañuy wax ni bu ne diw bari na xam-xam dañ ne ndax borom xam-xam ya ko wax bu ne diw kat ku bax la dañ naan ndax bokk ya ko wax waye li wér te wér ñun ñi nga xam ne ci bokk lañuy wax ak yeen te jilé ko ci soxna bu sësi la nga xam moo meññ seen ñaari wajur yi yeen ñu bax ngeen te lo dit waxuñ ko ngir dañoo tok ci seen kër añ seenu añ mu neex ñu jakarlu yeen ci kersa rus leen di leen ko wax bu lenoon amoon it xamoon nañ ni buñ fi ñëwee danañ ñu wax loo te buñ ñu wax loo ñun mënuñoo ñàkk wax lu dul dëgg te buñ xamee ne buñ fi ñëwee wax lu du dëgg bu ñu fi wooyee duñ ñëw waaye yéen yéen ñu baax ngeen loolu rek lañ xam ci yéen yéen ñu baax ngeen ndax lii nga xam ni sëñ Fallou Sylla mii njëkk a wax wax na ko ci yow loolu waxuma la jullit yi waxuma la mbindeef yi waaye jamaa daal yi sax seere nañ ko sa bëri yitte sa bëri kersa sa bëri jàmm sag dal sag attan lu diis nag nga yenu ko ba pare mel ni ku yenuwu dara ku la gis ku nekk loolu da koy xam ci yow fekk yàlla dogal na mu xam nit képp koo xam ni wax na ci yow ab safaan daf laa umpale ni mu umpale màggook suñu borom bi waaye ku jàkkaarloog yow dana xam ne benn safaan nekkul ci yow ndax du ci judd du ci yar du ci jikko benn boo xam ne nekk na ci yéen ñaar ñii te li de man yewuma ma ndax ki tax ma ñew fi jël fi kaddu muy ci turu soxna bu sama mom dama daan deg muy wax lu beure beuri ci yeen ndax wax nañ ni ci ba ngeen gëne nek euh, tu tank señ bes mi ak señ do am dañ fa mësa ñew mo tek leen ci kaw lalam bi wacc bi waxtu añ jotee mu jël kër raxsu bi di leen ko jox neen raxsu leen ñu naka ka ah, yow de ya jur suñu wajur bu jigen ya ñu mag kon mu ni loolu def ko al mu ni leen yeen fuma leen di magge sëñ Tuba daan ne jaamu naa yàlla nangami junniyaat mu doog a bind aadama te yéen ngeen soqi ko ci ah, ci sëñ Tuba man fu ma leen di màggee yéen kenn magu leen kenn nit gënu leen ndax képp koo xam ne am nga tomb mbaax ba toog ci sam penc wala sa ruq di ko ndamoo ba man caa noggatu ñeneen ci seen baax gi dong la jóge jógewul feneen ci seen baax gi dong la jóge la doon suñ jafe-jafe nag mooy ñëpp ne baax ngeen te man mii toog jàkkaarlu yéen xam ni baaxu leen keneen xam ko loolu moo doon suñu jafe-jafe di seen jafe-jafe yéen it ndax boo ëllëgee si biir lii document la boo xam ni lii ñuy wax dañ koy présenté seen maam. te da koy vérifié bu boobaa. luñ ci luñ ci wax te nekkul ci document ba loola kersa lay doon ci ñun ñii ko doon wax kersa lay doon ci yéen ñi ngi ko doon waxal. waaye waat naa ci yàlla ni bu ngeen fa demee de dara lu leen ci benn duñu am kersa yéen du ngeen am kersa. loolu mom leer nañu nañ ndax lima la wax ne bu wooro wooro ne na bu ma àndeeg seigne bi ñëw fi dana ma wax lo te mom mi xamna na ne du wax duma wax lu du dëgg te konon dama koy dogal ngant ne ko damay dem Dakar wala damay dem feneen ngir baña wax lu du dëgg bu lii may wax nak deug la motax ma ñew nango jël kaddu gi mom mi di sa mag nga xamni ni bok seigne touba yena bok ndey ak baye nit la ko xamni ni mi ko bind rek mo xam lim doon ñun ñuy jëflanteeg moom it dañuy ànd ak moom ci kem lim ñu may ci darajaam rek ñu àndi ci ak moom waaye li nekk ci ak mbaax ak wayefal boppam te sëñ sëñ Tuubaa loolu sëñ Saliou lim ñu daan jàngal mooy nangu leen a wayefal seen bopp ba dugg ci lal gi waaye bu leen nangu ku leen force dugal leen ci loolu moom waxtu bu nekk dama koy dégg muy wax ni nit ku nekk fukki jikko la ko suñu boroom bindee dangay ngay seet benn ba nga ca mën a àndeek moom nga àndeek moom loola nag yor jikkoy Sëñ Tuubaa bëgg a defar te bañ yàq moo tax mu mel muy wax loola te képp ku bëgg a defaral Sëñ ndax Sëñ Tuubaa fekkoon dafay bi muy ñëw dafay fekk ñu bon ñu baax wut si fi woon dara li lii ndamam te mu koy diggee waxtu wu nekk di wax ni danaa ko bàkkoo bu ëllëgit si biir danaa jël ay nit ñoo xam ne leen présenté ci kanam sama borom ñoo xam ni ay modèle lañ te loolu mën a defar moo tax mu def ko seenu mën a defar moo tax ñi ñëpp góor ci seen kanam sukk nangul leen di déglu koo ci xool nga xool ko rek da ngay gis ne xar kanamam bi mbégte la ndax dafa am léegi lu may yéem ci sàppi su njëkk si bi ñuy julli damaa gis sàppi si xaw a xat ba ci yàgg ma xaw cee mer ba ci àgg ma ne déedéet ñaxatal sàppi si coofeel ak xiir gu ñu am ci yéen moo tax kenn ku nekk bëgg a dend ak yéen loolu rek moo waral loolu waaye ñun de ñi nga xam ne dañoo jógee ci soxna bu sa topp ci seen gannaaw maanaam loolu mbégte la moo xam ne ñun mënuñ ko mënuñ koo taxaw di ko di ko misaal ni mu toll. ndax dafa mel ni rek ci buñ ko doon misaal man ci sama mbégteem xol dafa mel ni ku maroon rek wëlbatiku gis dex ci sa wet gis géej ci sa wet gu la ci neex tànga naan. mbégte moomu la ñu am ci bokk ak yéen ku bokkut ak yéen bëgg naa bokk ak yéen. yéen seen tur képp kuy dox ci. mbiri àdduna yi ba tudd seen tur képp mbiram lijjanti ko ku ne sañ ba sama lii la dong wala sañ bi bu sama lii la dong mbiram lijjanti ko loolu nag bu doon succès la doy nañu ñun sëkk sëkk succès te loolu bokk ci sëñ Tuubaa moo ko maye waaye nag jikko ju rafet ju ngeen jikkoo moo moo ko peinture ba mel na war a mel ndax tabax bi mën naa dëgër lool ñu defar ko ma mel na war a mel ndax Sëñ Tuubaa lu dëgër a dëgër la bu doon fondation tabax la bu dëgër a dëgër waaye lii tax nag ñuy tudd Sëñ Tuubaa di la xemem dëgg-dëgg mooy pen gis nga tabax bi fu ne peinture nañ ko di dessin ko fu ne loolu mooy jikko yi ngeen yor ci Sëñ Tuubaa moo moo moo rafetal seen Sëñ Tuubaa gi moo tax sëñuñ leen a bañal damay dégg sëñ Mor Bousso mi muy wax ni sëñ Abdou Karim leen rek la daan wax mooy Sëñ Tuubaa ñun dañ ko ameel bor buñ ko mënta fay mm-hmm. kon nag bor boo ko amelee nit boo ko gisatul da koy jox way doon ya te yeen yéen a doon sëñ Tuubaa ñun dal na ngeen xamni bokk gi mom luñu banexo la jikko ji ngeen yori luñu banexo la waye taalibi gi nga xamni yor ngeen ko ñu diko royat ci yéen it moo ñu ëppal njariñ ci loolu yalla mi nga xam dal moy sam ab jaawam yalla na leen samal bopam ci gën ga rafetu karange yalla mi nga xamni ku mucc mo la musal yalla na leen musal tayet euh, ragal na ni mucc dana am ndax fekke li ngeen wara jariñ ni yeen ngeen koy jariñ ba pare muñ sen lor yi li waroon ñew ci yeen yalla da koy yëkëti tek ko ñeneen way yeen mom da ngeen muccu inshallah rabbi kenn amul sen fay ndax li señ bi def ndax bi mu ñew dañu bi ci guddila la ma wone ma damay xey dem kër señ bas buma sañon nak nag bu may jóg damay and ak sama bokku yépp ci la woyé cheikh si di sama nijaay mu ñew présenté fa mbolé représenté fa mbooleem ko dëkk mbakol wo señ moor bu sa mii mbooleem ko aju ci soxna bu sa rek ci wàll googu ci sant bu sax mu ñëw woo sañ jiili mi nga xam ni mooy sama kilifa mooy sama mag mboolem ko aju ci soxna bi ci sëñ Seex rek mu ñëw loola nag ñii laa koy wax waaye yow xam nga ko ndax koo ci gis rek da xam loola la muy tekki loola ab bind la bu muy jàngale ku am sa mbokk nii nga ko war a téye waaye ñun ñiit nii lañ war a toppee ci seen gannaaw loola rek la ñu jubloo jàngal wasalaamaaleykum wa rahmatullah naruma sax woon a uh, sànni ay kàddu moo taxoon moo suñ Moussa Diatara ne ko mu jot li may kàddu cant ak i ngërëm jëmee ko ci Serigne Abibou li ko waral it may kenn du sant sa bopp nit du gërëm boppam tax falaatu zakku anfusakum jooju alxuraan di santaane bu ma ko defee bu ma santee suñu Abibou demee dama tàbbi ci biir loolu waral wax ji diis ci lii itam nii nga ko waxee ni ko suñu fan mi waxee bi muy ubbi doonut lu lu jëkk am waxtu ne lu daa am la ndax moom ni ko waxee rek dañoo bokk lépp waaye li ñu bokk bokk lépp itam Sëñ Tuubaa mooy li ëpp solo ñu door bokkaat liñ bokk muy ñaari wet yëpp waaye loolu lépp nag dañoo bokk bëgg-bëgg muy sëñ bi te loolu mooy li ko gën a dëgëral kon moom diis ko sant diis ko gërëm ndax lii suñu Moussa Diatar wax léegi suñu Saliou ña wax ko léegi yóbbaale na lépp waaye eh, dadi ne faaw seere léeg-léeg day baax sëriñ Saliou sëriñ Hamza di suñ doom dégg nañ béy yi nga xam ne wax na ko moo tax sama xel dem ci gën sànni ci ay kàddu ndax yéemaat sëriñ Touba xam ne mbirum sëriñ Touba lépp rek ku ci xalaat. mu ñor la nga di ko setantal sam xel day gën a dal ndax ñoom ñii kat ñoo leen jur ñu suñu doom waaye tey boo déggee béy di mu fi sa waaye léegi fi sansa kon da xam ne suñ moom lu gën a mujj rek pàggu defam foofu lay gën a sore muy muy lu sori loo xam ne kuy xalaat day gën a dal sam xel te loolu waxtu ne dama koy seere ci njaboot yëpp nag ci njaboot suñu Tuubaa gi lu gën a mujj rek ak pësteef gën a bëgg Sëriñ Tuubaa gën a gën doyloo Sëriñ Tuubaa gën a soobu ci yoonu Sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ bi ñu ngi lay sant cant gi nag eh, daa bari ndax liñ bokk jërul dellusiwaat ndax adduna sépp xam nañ ko waaye moom wàccoon ak ñun moom mii may waxal ndax li ciy firnde dëkk bi mu njëkk a sanc fam njëkk sanc daara mooy ndokk man la fa njëkk sancal daara mu jàkkaarloo këram loolu boo sanc guma sama kër gi kon yàgg na ba ca des saarit bopp si la ñaar ñëpp fa lañ cosaanoo ci mbaakoon waaye dëkk ba defar fa kër defar fa daara alxuraan yóbbu fa ay gone def ko def fa kër jox ko ko mu jaar kër gi joxaat ma ko boo sënci gu soo soxla daara jële mooy mooy ab dëkk ak mbooloom ma fa ne ginnaaw boo ko Sëñ Tuubaa defalee Sëñ Gaawaan li ma ko diggaat bëriwu ci yoon yi xam naa ñàkkul nag kon moom wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun loolu lay dund ci sama digg moom mooy lu doon de mën la ko gën a yéene loolu xam naa ko te eh, caméra bi bii fi ñëw sax daanaka fa woy fóori ñëw ndax leneen na ko yëkkati woon yeneen yitte ko yëkkati woon mu tombe ci mu far ko jëlaale waaye lii sax eh, li ñuy wax eh, jël li ñuy wax suun suun daaxiliya la waaye comme yàlla def na mu tombe nag kon day mel ne loolu suñ borom li ñuy wax sut fa amut di ngeen tuddee asar ci ci tubaab amut doona suñ borom xam la tax mu def ko kon dañuy sant bu baax baax ci jataay bii di ko bëgge ngir xam ne eh, koo xam ne boo ko wooyu mu ñëw boo jugee yëkkati sa kàddu boo jugee yëkkati sa tànk ñëw eh, seet si koy da ngay nemmeeku ci nam tooge ndax foofu la ñu féete lépp lu fi ma saxew yéen xam ngeen ko xëy na xanaa ñi ñi xamut waaye lu ma saxew fii rek lu ma doon moo moo koy jiite moo fi jëkk moo fi mujj loolu mooy mooy mooy suñu diggante te dara mos lépp lépp rafet cër bi ma sédd ci boppam nag ginnaaw bi liñ bokk jàllee mooy tax sax léeg-léeg ma di ko daw ndax dama naan si ayib ku ko topp ci pëstéefam ak ni muy doxee boo yeexee mën na laa gaañ ndax moom ku mu gis rek jàpp na ne boo eh, day xeeñ du Sëriñ Tuubaa ci yow ñu itam noonu la ñuy def ci moom mooy tax sax may taayal ci ab jotaayam ndax ni mu lay def day ëpp ba doo xamante nooy def kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaan ñaanal ci barke Serigne Touba ndax positif bii ngeen xam ci moom doonut lu yees ci moom man ba ma ko xamee mu nekk Égypte di fi jàng di ñëw vacances boo gone gu tuuti daa nekk si émission bi waaye xam bi moo ko si ibiwum tey bi wax yi ngeen dégg mu di ko wax ci positif it doyloo Serigne Touba ak gëm ko yam ci Serigne bi tàmbale ci Serigne Touba yem ci Serigne Touba ndax loolu bari ñu koy wax waaye moom da koy dund naka jekk ba ma juumut quatre-vingt-dix-huit wala quatre-vingt-dix-neuf wala du ko sori dal waaye ba may juum ca daddi ci la xëy jékki-jékki ci ne ma bàyyi naa tukki te boobu tukki bi yàlla defaloon na ko fa tawfeex nit ñi bëgg ko lool xam naa ci dara daanañ fa daje waaye daa xëy doogu rek ne dootuma génn Tuuba te boobu yombut ndax ba ba mu koy dogu bàyyiwut ba jekk ko door koo def daa dogu rek Sëñ Tuuba fekk si ko ci. moo tax Sëriñ Tuubaa lépp lu nga gis mu defal ko nit rek am na lu ko jiitu. kon dafa doog a jaayante. moo tax Sëriñ Tuubaa di ko liggéey lii mu koy liggéeyloo. loola itam kilifaam yëpp noonu la doon dundee ñoom ñi ngi koy waxtaan léegi maag Sëriñ Mataar ak moom ci Sëriñ Saliou te xamoon naa ci dara kilifaam yëpp itam noonu lay dundee ñoom. tàmbalee Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké Falilou la daan doxee diggéem ak moom Cheikh Mouhamadou dégg naa ba tàyyi mu sant ko fu mu néewut kii fi nekkal sëñ fa du sëriñ Abu fu ma gisee bu jàmmanteeg moom ba noppi li ma njëkk wax sa mbokk mi damaa koy sant wu gërëm ndax ma fii fi ma nekk di sëñ Fallu de kenn jiituwu ko ci man ci taxawaay fu ma gisee loolu ma njëkk wax kon loolu dara gënu ko kii fi nekkal sëriñ Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax moom yàlla ko defal tawfeex ni nit ñi def sax di xalaat ni Cheikh Mamadou Mountakha daa doxee kilifaam danaa koy netti lu bare bari ndax Cheikh Mamadou Lamine Bara nekk na fi Cheikh Sidou Mokhtar nekk fi mu nekk seen jëwriñ mën na ci seen diggante waaye mosuma dégg mu am xalaat luñ ko wax rek ba booba man sax xamuma ne sëñ bi am na xalaati boppam bi mu doonee sëñ Tuubaa rek laa door a gis xam ne kenn ëpp koy xalaat waaye moom mii gis naa ne loolu lay dund diggam ak moom. lu mu xas xam ne suñ bi la jógee du ci xalaat tolloo ñëpp noonu la ñu war a def. kon loolu wetti ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ci liggéey bi ndax loolu dama cee mat seere ndax sëriñ bi wax na ko ay yoon fu mu néewut ne moom moom yàlla da dimbale ndax ndimbali mooy eh, Sëriñ Tuubaa yéene ko ci boppam. Mm-hmm. te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Cheikh mu suñu Saliou neen da ko ne woon yàlla suñu borom bu la naree dimbale dalay yee ci boppam. waaye Sëriñ Tuubaa itam képp ku mu bëgg a dimbale day defal positif ndax positif moom yàlla da ko mën a fàggul nit ak sëñ bi waaye kenn mënu ko fàggul ndax ku bëgg am positif te positif bi ne wut doo ko mën a am waaye comme defal positif kon kon liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey Sëriñ Tuubaa te xam ne ñëpp xam ne itam ñëpp gëm ne Sëriñ Tuubaa nangu na ko ndax fi ma ko tegit mooy xoli taalibe yi te Sëriñ Saliou daa wax ne xolu taalib yi fu mu jëm rek fa la xolu sëñ bi jëm kon moo tax ma gëm na sëñ Tuubaa nangu na ko kon dañ koy ñaanal ci barke sëñ Tuubaa mooy kuréel gi mu jiite di daayira di Tuubaa ci kanam dañuy ñaan moo moom mboolem ñu ngi ko ànd ak ñëpp nag di mboolem positif jaayante dogo ngir liggéeyal sëñ Tuubaa jëm ci sëñ Tuubaa la leen sëñ bi wax rek yàlla bu ñu amum ndokk yàlla nañ àgg fañ jëm te rafet nañ jor bu baax a baax ci ne yàlla daal leen ci dimbale ndax li tax mooy keroog bañ ko sosee bañ ko sosee booba demaguñ ci Cheikh Cheikh Sidi Moussa bu ma jumut ba ñëwee fekk ma ci kër si Tuubaa ga dama leen waxoon ne leen seen daayira bi ni ñëpp ci am yaakaar kon nag li ngeen di moytu nga xam ne daayira bu ma a yàqu gis naa ne moo ko yàq mooy dugal ci àdduna wala bakkan wala politique bu ngeen ci muccee dana àgg. yàlla dimbali na leen nag ndax yi fi jaar bari na te àdduna waxtu ne seytaane moom shawala lahum sheytaan wa amla lahum waxtu ne mi ngi jaxase xel yi di la xalaat loo di la gis loo loo wër gis waaye yàlla ngi leen dimbali te yàlla na leen gën a ci barke Sëriñ Tuubaa ba yoon wi ñu tege nga xam ne kenn amul loo ci mën a sikkal mooy tàmbulee ci liggéey Sëriñ Tuubaa yam ci liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na leen Sëriñ Tuubaa gën a dimbali ba yéen ji yéene ba koo jëfar Sëriñ ci dëkk bi ndax dëkk bi moom suñ Tuubaa noppi na ci ñaan na suñu borom lépp ba suñu borom mooy na ko ku am tawfeex rek mooy mu def loola ci dara waaye suñ Tuubaa moom mbiram noppi na ci lépp liñ doon nett léegi tama dégge woon ko ci euh, sëriñ bi suñ Saliou muy loo xam ne doon na sëkki ab ab soññee ndax ngir xam ne suñ Tuubaa lu ko nit mën a jëfal itam loola fekk na moo la kàtt jox kàttan nga mën koo jëf kon tawféex ji mooy kàttan bi mu la may nga mën koo jëf dafa am génn kilifa gu mag goo xam ne dafa waxoon ne dafa daa bëgg a dajale sëñ bi ak addi joxoon kenn mësu ko ko jox boo sëñ bi nga gànnaar mu dajale dajale dajale lu bari lu son def bay la mu war a def lépp mu def ko mu dajale ko ma juróom-ñetti junni mu fekk sëriñ bi gànnaar ba mu dikkee ak si siyaare sëriñ bi wax ko li ko yëkkate ndax dana daa bëggoon a jox sëriñ bi addee ju kenn mësu jox daa di wax sëriñ bi ne ko addee ji de juróom-ñetti junni la daa di wax lim bi sëriñ bi ne ko wax baax na sëriñ bi nekk ci ay ci jaamu yàlla yeeg ibaadaat yi na suuti ndaw agsi bàyyi ko ci sëriñ mënu bi sëriñ bi sëriñ bi daal laaj ne ana ndaw la bàyyi bàyyi ko ci Ahmadu Ndumbe ñuy woo ko mu ñëw kenn di xaalis su ko ànd la moom ngeen dem ci kees gi ngeen ngeen wàññi ba xam di ko suñ mënu ba yónni doon. suñ bi sa xool lu doon te kooku it xamul lu mu doon. xamul doon mu daal dem ànd ak kooka dem ba ci biir kees ga ñu wàññi ko muy ñaar fukki junni mu dellusiwaat kon suñ tubaab wan na ko ne lu fi nit indi rek nit indi na fi lu ko moo tax ma genn gàmmu ci njaareem lu mel noonu loolu loolu lay nuru moom it kooku daa wax ne daa bëgg delloo Sëriñ Tuubaa njukkal ci togg ay rey ay nag yu bari ak i xar ne daa bëgg a teral gan Sëriñ Tuubaa yëpp ci gàmbu gi sonn ci lool nga xam ne teraange fu ne lañ ko yóbbu ba mu noppee nag ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko ana loo ci jubloon mu ne ko xanaa jéem laa delloo njukkal sëñ bi ne ko mënu ko. ne ko kon yàq nga si jëf ndax mënu leen ko ndax eh, teraanga ji li muy rëy rëy eh, maa ngeen mën ko kon ana ana cant gu mooy ngeen yëg na maa leen ko defal mu dëppoog la Cheikh Abdoulaye Mbacké waxoon ne Serigne Touba lim ma defal dafa rëy loolu ba xamul lu ma koy sante ndax lu lépp lu may yëkkati lu mu rëy rëy ma nar ko ko sante ma xool ko lépp di yëfam ma ma ne naa doo dàq ko ci bëggam kon nag dañuy ñaan rek. ci barkeb Serigne Touba barkeb wajurum bu tedd bi nga xam ne ñëpp xam nañu xaasam ci Serigne Touba démb rek ñu ngi koy waxtaane ñu ngi koy nettali fii ndax ñu xam ne réew mi moom la sëriñ bi waxoon rek ba mu wàccee ba mu wàccee ca batu ba yëkkati loxo yi lépp li ngeen fi séenté xam ne loxo su si moo ko def Serigne bi daan ko nettali lu bari. Serigne Saliou nee na ci gànnaar népp ne lu ngeen fi séen rek loxo bii loxo loxo bu tut bii ko moo ko def daan waaye kooku ci nattab la ñàkk ko léegi moom lu waaye am rek moo la ko defal euh, Cheikh Mahamadou Fadil moom may nettin nag ci xew-xew yi fi xewoon ci président bi fi newoon di président Senghor boo dem na ba ñàkk réew mi ñu ngi koy waxtaan fi démb waxtu yi démb jàpp demoon na ba jàpp na ñàkk na réew mi dem na ba jàpp ne ñàkk na réew mi xaaju guddi mu ñëw fëgg suñu Ousmane Bousso suñu Ousmane dem ci siñ bi yëgal ko ko fekk siñ bi fàttu na mhm. mu ne ko comme doom mu ne ko Léopold mu ne ko ko neeku na ñëw bi mu dikkee Senghor wax sëñ Fallou yëf ba xamal ko ne ko daa ñàkk na nguur gi daanaka mhm. Cheikh Modou Fall dina ko déedéet xaddu damm daal di door sàkket dina ko xaddu damm. fekk dem ca jëfandikoon la mu doon jëfandikoo ci Darou Manane. Mm-hmm. mos ngeen dégg suñu Modou nettali ko. Mm-hmm. suñu Cheikh Modou dina ko xaddu damm. Mm-hmm. Senghor boo tiit na. ne ko xam naa ne faaw nga jaar feneen fu bukkute fa nga daa jaar. ndax yëf yi moom de jeex na ba noppi. Cheikh Modou Fall ci xaaju guddi gi mu ànd ak ba ci barabu suñu Tuubaa. bañ demee ñu ubbi barab bi mu ne ko waxal li nga bëgg daal la ci fekk si Senghor wax la mu bëgg bañ dëppee suñu Ousmane nee bañ tolloog mbalka mi newoon ci buñu ko Cheikh Maodo Fadel bi mu tolloo fallu jël loxoom daa daa daa di jël loxoom naan ci naan si benn gox fekk Senghor a ngi ci ginnaawam Senghor toppandoo ko def ko bi mu jàll mu ne ko dama la doon seetlu rek ba boo ko defutoon rek ma xam ne li nga bëgg doo ko am. ci suba sa ci suba sa bañ xëyee rek. Mm-hmm. ci lañ wax ne yëf yi jeex na si waru lépp del si na ci loxo. doomam a ngi toog di siñ Fallu mm-hmm. kon seere la ci am solo mooy seere soxna ku ko dégg xam ne dégg la kon ñu ngi ñaan ci barke suñ Tuubaa mm-hmm. yal nañu euh, Sëriñ Tuubaa dimbale ndax Sëriñ Tuubaa moom fàggu na lépp boo dee xool xasaay di lépp fàggu na ko ci li nga gis loo gis yoon wi rek boo dee jàng biir xasida da nga ko ci gis mm-hmm. wajaal qulubana ala tawadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri xataa nasira muslimina xaasiin ndax xam na ne loolu boobu duñ nekk dëgg-dëgg jullit kon loolu lépp fàgguwaat na ko ci biiru njabootam mm-hmm. duñ xëccoo duñ ŋaayoo lu ci waay am sa moroom yéene la ko ci waay bëgg sa moroom bàyyee la ko mm-hmm. loolu la ñu Sëriñ loolu nag mooy àjjanay adduna di àjjanay ëllëg la sëriñ Abdullahi borom daa daa wax ne jannati ilal jannati jannati ilal jannati loolu lañ suñ tubaab defal am koo xam ko soble la xam nga nit ñi niñ mën a dingate rek mel na ko xaw a jaaxle mu ne ko wali man xaafa maqaama rabbihi bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu